mbokk yi nu ngi sant sunu boroom nu ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi moom sunu boroom nga xam ni nirliwu ko ak kenn noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamim xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain alhamdulillah ñu ngi sant suñu borom bi ñu defaree tawfiq ba ñu ñëw ci jataay bi ñu yaakaar ni insha allah jataay bu barkeel lay doon di njoortee njoort bu rafet ci suñu borom comme ni ko yonent bi waxee ana inda zanni abdi ni ko suñu borom nettilee ni ko suñu borom waxee yonent bi nettali ko jataay yu mel nii nga xam dañ cay fàttali yàlla di ca nafar ay mbir ci sunu mbiri diine jotaay la yu ñu yaakaar malaaka yërmande wàcc fa jotaay la yu ñu yaakaar it sunu borom def ci baraka yàlla na sunu borom defal nu ñaar yëpp fàttali tey bi insha allah ñu ngi ko sàkk woon a def ci ayna anti min haula maanaam yow noo defek ñile loolu nag ab comparaison la boo xam ni ñu gëm yàlla mën nañ koo comparer seen bopp ak ñu baax ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon fil iman alladina sabaquna bil iman jàpp naa ne di waxtaane waxtaan yu mel nii ci jataay yu mel nii nga xam ne ay jigéen ñoo ko taxawal solo sa foo ko takk dana ko romb salafu saalix muy mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñoo jiitu ci diine ji yàlla yàlla nangul leen seen mbaax mbaax ya jéggal leen seen rëcc rëcc ya saxal lu ci ñub ban fekk leen ñoom day xàll nañ yoon wi wane ko amut kenn ci ñi gëm yàlla muy góor wala jigéen muy mag wala ndaw lu dul rek am nga koo mën a niitu ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana sikk nekkul ci ni buñ ko gisut ba pare di ko mën a roy mooy ña doon toxal am ngirëm ñaari tomb dinaa ko tijjee tomb bu njëkk bi mooy ñun day bokk nañ ci ñi faral di def ay waxtaan yoo xam ne day jëm ci jigéen kese loolu la ko waral mooy gëm gunu gëm ni jigéen de bu defaroo lim mën a defar ci société góor gu defaru mënu ko ndax yàlla jox na ko ci ay jumtukaay yi defar loo xam ni góor amu ko loola tax na ay waxtaan yu bari yoo xam ni def nañ ko ci bunt bu mel nii bokk na ci yu mel noona alqabidaatu ala aljamar mooy jigéen ñi nga xam ni góorgóorlu gi ñuy góorgóorlu ci seen diine fi mu ne nii ci jamono bi ñuy dund mi ngi mel ni ku ngëpp ci xalu sawara di dëppoog la yonent bi doon dégle bokk na ci yooya min axbaari nisaai salaf wa axlaaqihinna lenn ci melokaani jigéeni salaf ak seeni doxalin lenn ci nettali jigéeni salaf ak seeni xabaar bokk na ci yooyu tuumaal gi ñu tuumaaloon yaay Aïcha ak yenn jàngat lañ ca mën a génne ci wàllu yar bokk na ci lan moo tax jigéen ñi fi mu ne mënatuñoo jur ay doom yu baax comme ni ko ñu njëkk ña manee woon yii may wax yépp ay mawdoo la yoo xam ni jàpp naa ne yu nu def la ay enregistré nañ ko te ay jigéen rek la jagoo bu tey bi ñëw nekk luy topp ca yooya muy ayna anti min haula kon waxtaan yu mel nii am na solo di ko def ñaareel bi may tijjee mooy ñaareel bi mooy bu ngeen seetloo jamono bi ñu toll mbokk yi. tourne ko waaw. jamono bi ñu toll jigéen ñaa ngi woote ay jigéen yu nu ngemb ci mbub mañ leen solal wuuteeg dëgg dëgg dëgg la ñuy woote ci di wane ne jigéen ñi ak góor ñi ñoo yam ak jigéen ñi nga xam ni. ñee di yëngu ci wàllu théâtre ñee di yëngu ci ay mbootaayu jigéen ña ca des di yëngatu ci ay mbir yoo xam ni wax dëgg yàlla mbiri àddina yi kese la di ca mën a def ay colloque ak ay congrès di ca mën a def ay jataay yu gudd te xóot di joxe ay exemple ci ay jigéen yoo xam ne wax dëgg yàlla jigéen lañ yoo xam ne du ñu parce que ñëwul
waxul ñëwul ñëwul ñoo ngay joxe exemple ci ay jigéen yoo xam ne wax dëgg yàlla du ñu ay jigéen yu ñu war a woy roy ci turu diine loola nag jàpp naa ni bu amee jaadu na moos jataay yi nga xam ne dañ koy am fii ñu di ko amal ci turub fàttalante ci jigéen ñu baax ñooña nga xam ne ñooñu jiitu woon ñetteel bi mooy nekk kon ñëw ci turub fàttali bi mooy ayna anti min haula mooy yow fan nga toll ci ñii maanaam ñii roy leen foo ci toll loolu nag daañ ci tudd ay mbir ci dund salafu saalih muy gaañu baax ñooñee nga xam ni ñun ñii ñëpp ñoom la ñuy roy ndax ñoo doonoon taalibe yi ñu nekkoon taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yar leen jàngal leen xàll wi nag ñu jël tey di ay jigéeni kese jàpp naa ni jullit bi nga xam ni ngëm yàllaam yitteel na ko ak defaroom yitteel na ko ak mbaax yitteel na ko te loolu la ñu gëm ndax ki nga xam ne bàyyi na caaxaani àddina yépp muur aw yaramam kooku am na lu mu bëgg ci digganteem ak borom même bu ko amagut ki nga xam ni poñetam àddina mi ak ñi nga xam ni ñooy jigéen yi jaayoo ka wëndeelu mënoon naa mel ni ñoom ndax lu ko tere mel ni ñoom amut waaye kenn forcé wu ko ba tax mu bàyyi ko waaye ibtigaa mardaati rabbiha bëgg boromam gërëm ko moo tax mu def loola jàpp naa ni ñooña day waxtaan yu mel nii buñ ko dégloo sikk nekku ci ni war nañ caa mën a jariñu ndax lan bàyyi rëy na lool kon ñu xam ni jigéen ñu baax ñooñee day eggoon na ci seen mën a jaamu yàlla ak seen ragal yàlla ak seen wàcc àddina ak seen dëgmal ngërëmal seen borom tax nañu meloon nan mel loola nag nit ki nga xamante ni dañ koy fàttali ay nit yi simple rek mu mën caa yéemu nit ñi nga xamante ni ñoom dañoo nekkoon ca ron keppaaru yonent bi wala ca ron keppaaru ñu nekkoon ci ron keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mënees na caa jariñu insha allah kon ci fàttali bi dinaa ci tudd ay misaal yu gàtt rek ndax waxtu waaye leeral ci ay mbir yoo xam ne ñu njëkk ña doon nañ ko dund léegi nag nit ki jël jëmmam teg ko ci kanamu waxtaan wile ndax kat waxtaan loolu lay jariñ nit ki bu ñëwee teg kanamam ca kanam waxtaan wa di xool waaw man ñii ñuy wax ñoom liñ bëgg loolu laa bëgg man damay sàkk ngërëmal suñu borom comme ñoom àjjana laa bëgg a dugg comme ñoom ah bu ko defee ñoom ñi nga xam ne ñoom lay xëccool yëf yi ñoom nii lañ meloon ah jaadu na kon nu nit ñu góorgóorlu jéem a mel noona ndax su mënta woon a nekk duñ nu ko sant kan la ñuy njëkk a tànn ci ñi nga xam ni jigéen mën na koo teg ca kanamam laaj fan la toll ci kooku muy Aïcha ummul muminin as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anha Aïcha nga xam ni wax dëgg yàlla ku nu xam la ba ci ko tuddee ay doom bari waa na ci ñun ñoo xam ni sunuy doom moom lañ ko tuddee Aïcha doomi Abubakrin di as-siddiqa doomi as-siddiq nga xam ni moom ak baayam ñooy ñi gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi mu gën a bëgg wax biñ ko laajee loolu la wax koo gën a bëgg ci góor ñi mu ni Aboubacar ci jigéen ñi mu ni Aïcha Abdullahi ibni Zubayr mooy nettali nga xam ni doom la woon ci Aïcha ndax magi Aïcha ko jur nee na ma raaytu mraatayni qattu ajwadu min Aïcha wa Asma wala ajwada min aisha wa asma moom de nee na man mësumaa gis ñaari jigéen yoo xam ni wala gisuma koo xam ni tabe naa tabe ba mel ni aisha ak magam asma te man li ma jaaxal sax ci seen tabe ñoom ñaar mooy dafa wuute te xam ngeen tabe mooy wa mimma razaqnahum yunfiquun li la yàlla dénk wërsëgal la ko lu mu néew néew néew nga di ca coppati di joxe ngir sàkkoo ko tiyaaba te joxe dafa metti ndax alal dafa takk ci xol rawatina ci jamono joo xam ni nit ñi kenn ku ci nekk yaa ngay kolkolee ka ñol-ñoli ngir am loo fàggu pour mën koo fajee say soxla coppatiwaat ci di ca joxe nag wax dëgg yàlla day gën a metti mu ni ñoom ñaar li ma jaaxal mooy seen ak tabe dafa wuute li ko wuutele mooy Aïcha moom léeg-léeg day dajale maanaam bu amee lëf day téye su ëllëgee mu amaat leneen téye su ëllëgee mu amaat leneen téye ba affaire bi bari mu génne ko joxe ah waaw jàpp leen ni loolu moom lu kéemaane la nit ñi di am di faj seeni soxla yow nga am di denc mu ni su dencee dajale dajale ba yëf yi am solo rek day xëy benn bis rek daal di condamné bi wala mu ubbi waxande wi rek génn daal di woote rek di ko séddale kooku am na lu mu bëggoon digganteem ak boromam waaye mu ni asma moom li ma yéem ci moom mooy moom da du denc moom dara du fekkanteeg morom ma jàpp naa ni ki nga xam ni moom day denc dajale ngir lu mën a joxe bari ak ka nga xamante ni moom du denc du bàyyi sax ñaari mbir di dajaloo mu doog a joxe jàpp naa ni ñii ñaar bu ñeela ñoo bokk benn baay ci doon keppaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu xel dana ko nangu alqaasim nee na moom Aïcha de xamoon naa ko ci mën a woor ba am na ñuy wax ni moom sax daanaka de li ëpp ci at mi da ko doon woor li ëpp ci at mi da ko doon woor moom Aïcha radiallahu anha alqaasim ba léegi wala Urwa mooy nettali Urwa nee na pour wan la Aïcha ni ma ne woon a jaamu yàlla ak ni ma ragalee woon yàlla nee na benn bis damaa xëy suba teel am soxla ci Aïcha nee na ma xëy dugg si nekk Aïcha fekk jant bi fenk na ma ñëw di ko nuyu si maa ngi ko fekk mi ngi taxaw di julli maa ngi ko dégg mi ngi jàng aaya ji nekk ci suuratu suma juumul at-Tuur aaya jooju mooy borom bi fi muy waxee subhanahu wa taala audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim inna kunna qablu fi ahlina musfiqin فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لا يجوز لميتك mooy borom bi di wax ni waa àjjana de bu ñu tàbbee àjjana waa àjjana bu ñu tàbbee àjjana sunu borom ni da ngay dégg ñu naan ay ñun de biñ nekkee ci àddina foo nu fekk ñi ngi tellu tellee ka pat pati saa buñ déggee fu ñuy waxtaanee àjjana rek ñu ngay meleste ko ngir nan la ñuy def ba dugg ca maam waa àjjana ñooy nekk li niñ nekkee woon ci àddina yàlla sunu borom booleen ca ñooñu ah ñun de foo ñu mës a gis rek ñu ngay meleste ko yàkkamtee tàbbi àjjana boo tuddee sawara nag moom suñu fit wi nee na tuxit ndax yaakaar ni mën nañ faa dugg ah ba yëpp ya sottee mu ni fa man allahu alayna yàlla daal di ñuy baaxee wa waqaana adaba samuum daal di ñuy fegal mbugalum sawara si nga xam ni moo gën a bon posan nee na Aïcha aaya jooju laa ko fekk muy jàng mi ngi koy baamtu di jooy fekk mi ngi taxaw di julli di jooy jooy yu métti sax ah Urwa nee na ma taxaw comme damaa amoon ci moom aajo ma ne xëy na lee mu rukkoo ba sëlmal nee na ma taxaw diir bu yàgg yàgg yàgg Aïcha di baamtu aaya ji di jooy rek di baamtu aaya ji di jooy rek di baamtu di jooy rek ma ne xaaral kon ma dem marché ba tourné su ma amee saay soxla dellu si waat xëy na ma fekk ko mu pare nee na dem naa marché doxi saay soxla ba dellu si waat fekkaat ko mu taxaw di baamtu aaya ji di jooy te xam ngeen ni marché ak lu mu jege jege jege jege waaxu fa dem ay soxla dellu si waat fekkaat nit ki mu nekk ci benn laay rek di ko baamtu di jooy tey ñun la jigéen la kooku ku ragaloon yàlla la ca waxtaan yooyu ma doon junj sànq passé am na ca bopp benn doomu bàjjanam moo ko invité woon moo Aïcha radiallahu anha tegal ko ay xeeti ñam ñam yoo xam ne yu bakkane la nag nee nañ Aïcha bi mu génnee ci néegu biir bi ci néegu sar bi yegsi ca saal bi gis lekk yi dafa daw dar kanam gi ca miir ba di jooy ah mbokkam ma laaj ko waaw yow lan ngay jooy ak xéewal yi ñu la tegal ak maag yow niñ gëj a gisee mu wax ba àggal mu ne ko sa berndeel yii laa xool sama xel dem ca berndeel yenu suñu borom di waajal ca àjjana ma xam ni mbaa berndeel yooya danañ ca am comme niñ amee ci berndeeli tey yii nee na loolu moo ko tiital moo tax muy jooy Muhammad ibn Munkadir nee na taxal nañ jële ci ummu dar ummu dar ab bëkk néeg la woon bu jigéen di mbindaan ci Aïcha nee na benn bis ibn Zubayr dafa yónnee woon alal ju bare bare bari jox ko Aïcha maanaam xam ngeen ni julli ñi ñu njëkk dañoo fonkoon soxna yonent bi maanaam ku ci masaana am lëf rek looy dimbali bala ngaa am lu xol sedd rek da ngay dimbali waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Abdurahman ibn Awf dénkaane woon as lëf ci niiraatam ñu jox ko soxna yonent bi nee na bi nga xamante ni indi nañ ko samaaniina wa mi'ata alf téeméeri junneeg juróom-ñett fukk téeméeri junneeg juróom-ñett fukk ci jamono ji xoolal ni mu baree ñu ne la jamono jooju te xam ngeen ni jamono jooju daanaka loolu ay millions yi teg na moom maanaam téeméeri junni ak million ba teg na moom nee na biñ ko ko joxee Aïcha daal di koy sotti ci ab këll ci ab këll wala leget nee na ba mu ko ca sottee fekk bis boobu mi ngi woor mun jël am demal joxal ma diw am demal joxal ma diw nee na may joxe ba yëf yi ni pëng nee na bis boobu dog daa jot Aïcha ni ko defaral ma ndogu mu ni ko dara loo mën a ndogoo amu fi bi mu ko waxee loolu mu ne ko munoo woon a bàyyi ci liñ la jox loo sax ndogoo même boo ci bàyyilul sa bopp mu ne ko loolu koy sama xel a ci génne ba ma ko fàttali woon ma bàyyi ko ci allahu akbar xoolal ka mën a séddale ba fàtte boppam ndax lu mu ndogoo sax keroog am ko woon mu ne ko laa tuanni fii nii law kunti azkartani la faal bul ma yedd dama koo fàtte soo ma ko fàttali woon dinaa ci bàyyi loo xam dinaa ko mën a ndogoo Aïcha Urwa nee na léeg-léeg daana sarxe sabayina alfa dirham juróom-ñaar fukki junniy dërëm daana ko sarxe ci dërëmu nguur du muy xaalis ba ba nga xam ne xam ngeen moo gën a foor sunu xaalis ab tey bi nee na wa innaha la turaqihu janiba dir'iha jamono bi muy séddaleel juróom-ñaar fukki dërëmi ngurdu nga xam ni xaalis bu foor la woon nee na boo xoolee rob bi mu sol mi ngi xotteeku ba mu koy ñaw rob baa ngi si xotteeku ba mu koy ñaw xam ngeen ni kooku kon aajo woon a jënd beneen rob bu bees waaye nee na du ko def Abdullahi ibn Abi Mulayka nee na bi Aïcha tolloo ci sukuraat di faatu fekk Abdurahman doomu Aboubacar ma nga fa mais dañoo jékki-jékki rek dégg kuy nuyoo ñu yërndu fekk Abdullah ibn Abbas la ah mu daan ni Aïcha am na kuy fa gëdë Abdullah ibn Abbas la moo lay seet mu ne ko bu mu yegsi de bu mu yegsi de bu mu ñëw ah bi loolu amee Abdurahman Abdu Abdurahman ibn Abdullah ibn Abi Abi Abdurahman Abdullahi ibn Abdurahman ni ko ah yow xam nga kii nuyoo kan la mu ne ko xam naa ko koy Abdullah ibn Abbas mu ne ko yow Abdullah ibn Abbas ci say doom la bokk de nga naa ba mu yegsi mu ne ba mu yegsi de ba mu yegsi de xam naa ibn Abbas fii lay nekk di ma tagg di ma tagg te man fi ne soxlawuma ko ma tagg fi mu ne nee na bi mu waxee loolu ñu daal di koy sarku ba mu bàyyi ko mu dugg ci biir néeg bi bi Abdullah ibn Abbas dugg see daal di commencé ndeke la Aïcha la mu doon foog loolu la Abdullah ibn Abbas di def mu ne ko ah yow mii de daa mel ni sa ruugaa ngi waja tàqali ko sa yaram wi yow jigéen jii nga xam ne yow la yonent yàlla gënoon a bëgg ah yow day dëgg dëgg ku xam yonent bi nga xam ne daaw bëgg lu dul lu teey kon de yow mii teey nga laab nga yow mii xanaa da ngaa fàtte ni sa caq dong wadd na jullit ñi tardé ca amuñ luñ jàppee ba yàlla wàccat aaya aaya boo xam ni yaay sabab sama wàcc muy fatayammamu sa'idan tayyiban ci juróom benn ci suratul maida mu ne xanaa yaa xamoon yaa tax mu wàcc Aïcha xanaa xamoon ni fukki laaya ak nangam wàcc na ci suratul nuur ngir dina setal yow aaya yooyu fim ne nii ba àdduna tukki jàkka joo dugg danañ ko fa jàng di wax di wax di wax di wax di wax am yàgg mu ne ko Abdullah ibn Abbas puusal nga génn ca bitti lii ngay wax man soxlawuma ko man su ma yëgoon bañ a nekk sax Aïcha bañ a judd bañ a ñëw ci kaw suuf moo ma gënal li ngay wax te wallahi ibn Abbas li muy wax lépp lu dëgg la waaye nag ñoom taggu aji tagg daawu leen fàbbi daawu leen jay ñoom daawuñu jayeeku ndax ki leen di tagg naan yaa jàmbaar rek yaa mel nii yow boo diwul woon lii yooyu nga xam ni ku la koy wax yent yàlla benn xëppal ci gémmiñ ci suuf kooku musiba la la naral ah yooye ñoom daawu leen fàbbi waaye lañ doon yaakaar rek mooy yërmande suñu borom ak njéggalam jàpp na ni jigéen ju mel nii tey kenn ku ne ci suñuy jigéen tey war naa taxaw def benn waqfa ayna ana min Aïcha léegi man fan laa toll ci Aïcha nii nga xam ni ñu ngi koy tudd ak di ko bàkkoog di ko tuddee ay doom ak di ko ndamoog ah nga xam ne ñun ñoom la ñuy roy wala suñuy soxna ñoom la ñuy roy war nañ di jékki-jékki yàgg nafar seen dund xool ñun fan lañ toll ci ñoom ñaareel mooy asma doomi abubakar ak taymiya nga xam ne moo nekkoon way juru jigéen ci abdullah ibni zubayr nekkoon soxna ci zubayr ibni al-awwam nekkoon mag ci aisha nga xam ni moom ab sang la woon ci muhajirun yi wal ansar xam ngeen li tax ñu ko tuddee zaatu nitaqayn keroog ba mu yóbbulee baayam ak lekk ak ay bagage yóbbaalewul lu mu takkee bagage yi bàyyi ji ne ko ndax yor nga loo takkee bagage yi mu ni déedéet mu daal di xool gis ni ak fulaar la yore mu ni tareet fulaar ga ci digg ba fas ko ñaari fas ko takk ca bagage yi moo tax ñu ko tuddee zaatu nitaaqa yi asma radiallahu anha mbokk yi ku ragaloon yàlla la léeg-léeg amoon na feebaru bopp buy metti bu koy dikkal su ko mosaana dikkal dinan bi dan bi wa ma yaghfiruhu allahu akthar bopp bi de xam naa li koy metti ñu ni ko lan mu ni sama bàkkaar yu bari yi moom xam naa mooy metti sama bopp man li ma dal moom xam naa xëy na ñun dañ fi nekk naan tension mooma dal ak damaa am jabet ak damaa am crise ak damaa am ne moom mu ni man damaa am bàkkaar samay bàkkaar mooma dal wa ma yaghfiruhu allahu akthar mu ni li ma yàlla jéggal sax xam naa ni moo ëpp li ma yàlla jéggal loolaa ëpp Fatima bint al Mundir nee na Asma day jigéen la woon joo xam ni ju ragaloon yàlla la bokk na ca la koy firndeel mooy daana jël ku feebar maanaam hospitalisé ko lañ ko mën tuddee di ko faj waaye ngir bëgg mu wér jaral na ko mu jël ab jaam sarxe ko ngir ñaan ci yàlla ngir kii muy faj mu wér Muhammad ibn al-Munkadir nee na Asma day ku tabe woon ab bakkan la ku laabiiroon la Rukayd ibn Rabia nee na man dana li ma fàttaliku ci asma mooy dem na ba nekk mag magal lool nga xam ni tànk yi sax dëgëratut waaye keroog ba ma duggee ca biir néegam maa ngi ko fekk muy naafila te xam ngeen ni asma dund na téeméeri at ndax xam ngeen ni Abdullah ibn Zubayr di ko xajjaaj di rey boo fekk na asma am na téeméer wala juróom-ñeent ko juróom-ñeent te loolu daanaka mooy téeméer fekk bët yi gisatut waaye mag la woon mu dëgër mag la woon mu dëgër bi Abdullah ibn Zubayr dikkee di ko tàggu naan ko sama diggante xajjaaj lii ak lii moo ca am di wax ay wax yaay ji dafa làmb yére yi fekk mu ngi silmaxa mu làmb yére yi xool lim sol mu ne ko façon bii nga sol du yére góor gu nar a xeex summi ko nga dem soli leneen mu ne ko Abdullah ibn Zubayr kaay mu jege si ko mu foon bopp bi ne ko waaw yow mbaa nguur taxulaa jóg mu ne ko déedéet mbaa asfal taxulaa jóg mu ne ko déedéet mu ne ko giñ naa ci yàlla yii benn bu la ci tax a jóg yëgal ni yàlla du la dimbali waaye bu fekkee yàlla moo la tax a jóg rusal moos xajjaaj ñim jot a rey te fekk yow lan doon jàppale rusal ngay dundat ci seen ginnaaw wala ngaa rusal dundat ci xam nga kon kooku jàppoon ne doomam dana faatu keroog bañ ñëwee ni ko sa doom faatu na dafa delluwaat ci yàlla def inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tagg ko wax ay wax yu wax yu rafet yu ñuy wax ci jullit bu gëm yàlla xam ngeen xajjaaj jamonoom xew-xew yu bari xew na ca ba xajjaaj da doon wax naan ee yéen waa Màkka rayal naa leen góor gi gën a bon ci xeetu Muhammad xoolal ku ragal yàlla ba mel noonu nga xam moo njëkk judd ca Madina xajjaaj di ko waxal loolu Abdullah ibn Umar ba mu ko déggee daa ñëw ba tolloog fañ ko wékk ndax dañ ko rey pare wékk ko mu joxañ ko ni ko xeet woo xam ni yaa ca gën a bon day xeet woowa kon de baax na daal dem yoonam kon yaayam di Asma moom noonu la meloon ci ragal yàlla noonu la meloon ci farlu ak góorgóorlu jigéen du nangu woon sëy na te loolu sunu jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel Zubayr dafa naqari woon derete naqari deret ba foo ko takk robu na ko te jigéen ñi xam nañ ni góor gi gën a naqaree nekkal mooy góor gu naqari deret ndax yow loo def mu saf suukar mu safal ko xorom loo wax di ko neexal mu naqaril ko waaye li muy naqari naqari deret déglu leen allahu akbar subhanallahi alazim léeg-léeg day mer moom asma ñëw ci baayam Abubakar Siddiq jàmbat jëkkër ji sama jëkkër Zubayr nii wax wax ay wax mu ne ko asma demal nga jàpp ci sa sëy nga ragal yàlla te nga xam ni Zubayr ci waa àjjana la bokk wasala man xaw ma ci leneen lu dul loolu de allahu akbar mbokk yi ndax sunu yaay yi tey buñ doon wax lii soxna yi sëy ndax am góor gi de mën naa am ay ayib de waaye ndekete am na ay mbaax mbaax lu ko mën a fadda fa fanqal ayib yooyu xoolal rek li muy naqari naqari deret ndeysaan mu ne ko demal nga muñ te nga xam ni kii ci jigéeni waa àjjana lay bokk allahu akbar kon ndeke góor di nga nekk ak moom nga am lu la métti ci moom d'accord waaye gis nga la la métti ci moom la la neex ci moom nga koy muñee xam ngeen ni góor boorewut bon waaye jigéen boolewut bon laa yafriqu mu'minun mu'mina sama soxna si lii sama soxna si laa sama soxna si lii gis nga góor gu ko wax ba xaabaabalit boo seetloo ba ca biir am na yu baax yu soxna si yuñ dut lim loola du gore jigéen ji lu mu jàmbat jàmbat jëkkëram sama jëkkër lii sama jëkkër lële dafa naqari deret dafa lii dafa fiir dafa dugg na fii génn dafa lu ma wax lu ma ko tàggu mu tere ma gis nga loo ko limal limal limal bu dee sérieux nga te gore diñ ko limal yum baaxle nit nag lam baaxee loolu la ñuy jël nëbbalee ko ko lam safaan le dafa naqari deret toog waaye bàyyam Aboubacar xam na ni sax Zubayr daa naqari deret waaye ndax loolu jar na tasal sa sëy déedéet danañ ko muñal te nga xam ni sa jëkkër ci góori àjjana yi la bokk kon muñal ko ndeysaan benn bis yenent bi mas na ànd ak saxaaba yi ñu dem ba tourné romb asma fekk toolu Zubayr ak Madina dafa sore woon lool asma mi ngi yenu sayu mat yenent bi daal ni ko asma tey ngaa ñëw ñu yóbbaale la asma nee na ma ne teg xalaat ah yaakaar ngeen ne mbokk yi kenn ku la yó romb yóbbaale la dina gën a wóor yonente bi sallallahu alayhi wasallam déedéet mu ne ma ne teg xalaat ni sama jëkkër de daa fiira fiira fiira fiir ba man daal même bu dee yonente bi sax baax na mu ne yonente bi demal baax na yonente bi wax wax kaay ñu yóbbaale la sa matt bi mu ne ko dee demal rek baal ma dox allah fekk ñu ngi yoroon ay giléem nee na bi mu yegsee nettali ko Zubayr mu ne ko waaw yow yonent bi ne la kaay ma yóbba ak yonent bi ni mu fooree lu tax demoo mu ne damaa fàttali ko xam ni yaay sama borom kër te góor gu fiir nga ma bañ a tàbbal ci sa xol dara moo tax ma def loolu allahu akbar kon jigéen jiit na taxaw taxawaayu laaj boppam ayna ana min asma man fan laa toll ci soxna soosu di asma nga xam ne ñu ngi koy tuddee doom ñu ngi koy bàkkoo ila axiri ñetteel ba mooy xabsatu binti amiril muminin abi xabsin omar ibn alxatab xabsa doomu amirul muminin Omar ibn al-Khattab Hafsa xam ngeen ni jigéen ju taaru woon la moom lañ doon méngale moom moom Aïcha ak Zaynab bint Jahsh jigéen ju matoon jigéen la nga xam ngeen ne Omar ay baayam rafet lool yàlla may ko ci ay mbaax mbaax yu bari jaamukatu yàlla la woon toppkatu yàlla la woon woorkatu bëccëg la woon jullikatu guddi la woon subhanallahi al-azim woorkatu bëccëg jullikatu guddi loolu tey néew na loo koy gis sunu góor ñi sax waxuma laa sunu jigéen ñi fa xam ngeen ni asma Hafsa am na jamono dafa am problème ak yonent bi saa sallam yonent bi fase ko man nag histoire bi léeg-léeg dinaa ko yër ci siira dama yër yër yër yër ba sonn waaye en général boo seetlu ahlu siira dañ koy tudd rek dem lépp doo dañ faral di wax lan lañ jote loolu doo ko doo man gis tege guma ko ba dégg guma sax ko ko wax nag waaye daal ala kulli xaal am na luñ seeq ba yent wàcc ko allahu akbar Hafsa ni cëpp biir kër baayam yàlla yabal jibril ni ko demal neel Muhammad na fay li soxna si allahu akbar mbokk yi loolu loolu loolu martaba ju rëy rëy rëy la jibril ñëw ne yonent bi xam nga lu ma yëkkatee mu ne ko déedéet mu ne ko sa borom yàlla nee na laggal gaaw nga fayli as Hafsa innaha sawaamatun qawaama wa hiya zawjatuka fil janna wàcc nga ko de te xam ngeen ni góor xanaa du xëy benn bis rek wàcc soxnaam te defu ko dara dina am lu xew waaye ak lu mën a xew bis nga lan waxoon ci asma muñal ndax sa borom kër ci waa àjjana la bokk loolu lañ wax yonent bi ni ko muñal ndax soxna sii day woorkatu bëccëg la jullikatu guddi la te àjjana boo fa tàbbee kii ci ñu ma lay may lay bokk allahu akbar mbokk yaakaar ngeen ni bii tazkiya asma bu ko déggee kii yaakaar naa ne bu fekkonte ne tëdd yandoor la ñuy wax kii keroog war naa mën a biddanti ndax xel mu dal ndax bu yonent bi tàbbee àjjana di nga bokk ci ay soxnaam rek jàpp na loolu dal na xel trop waaye góor gu ma sa wàcc soxnaam mu dem yaa koy fay li baa say bokk waaye kii moom Jibril moo ko faylib sa yem maanaam Jibril moo ñëw ni ko demal nga fayli ji ko gaaw léegi léegi léegi léegi na gën a gaaw ndax moom ci say soxnay àjjana yi la bokk est ce que loolu tax na mbokk yi mu waru déedéet est ce que tax na mu sàggan ci ay jaamu yàlla déedéet waaye keroog la gën a farlu keroog la gën a góorgóorlu loolu tamit jigéen ñi war nañ góor ñi war nañ cee bàyyi xel góor ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax dimbalee ko jigéen ñi wallaay di nga gis jigéen mu sikk lool sikk ba sikkaatoo léeg-léeg sax nag li gën a kéemaane mooy jigéen ji ci boppam moom mën ngaa waxtaan ak moom du du lu koy luñ koy tuumaale moom ci jëmmi boppam dana nangu ni sikk na am nay ayib waaye gis nga nag li muy am am am ay ayib am na ay mbaax mbaax yoo doon wax yow góor ji kon loolu tamit góor ñi war nañ ciy bàyyi xel yent bi yàlla bi nee na kenn mënta taxaw rek ni diw mii bañ naa ko faw dara baaxut ci moom déedéet mu ne in radiya minha in saqita minha xuluqan radiya minha axar boo ne jikko sàngam de ni ma ko bañee ci diw di nga ne jikko sàngam ni ma neexee ci diw kon ñaar yooyu faw ñuy ànd kon laaj bi day dal sampuwaat ayna anti min haula mooy fan nga toll ci soxna yi yow julit bu jigéen bi fekk tox mooy ummul muminin zaynab binti jahsh moom ba léegi xam nga ñi ma limagul ñëpp ay soxna yonente bi lañ sallallahu alayhi wasallam zaynab binti jahsh ibni riab di doomu bàjjen ci yonente bi xam ngeen yonente bi takkoon na doomu bàjjenam muy zaynab binti jahsh jigéen du nangu woon a lëggéeye ngoo tegtala ngoog bu lay wan ni kon jigéen lëggéey dagan na xëy na dañuy de jigéen buy lëggéey faw ñu wax lan lay lëggéey ñaareel mooy fan la koy lëggéeyee ñetteel mooy borom këram da cay ànd ñeenteel mooy danañ ko tënk ci ay tënk mu doog a dem yooyu nag xam naa tudd ko fii du yomb waaye daal jigéen mën naa liggéey ndax ndaw si liggéeykat la woon waaye nag moom kéemtaanu yàlla gi mu doon mooy moom liggéeyam ba du woon li tax suñu soxna yi liggéey ñun naam armoire naam lal siis batan na naa def tapi bu tabaskee maam nangam natt bi ma bokk ci waaye moom daf doon liggéey wa tatasaddaqu bihi fi sabilillah moom liggéeyam bi mooy ngir moom lu mu góobee ca la muy liggéey rek mu mën koo sarxe fi sabilillah kaanat salihatan jigéen ju baax la woon sawaama woorkatu bëccëg la woon qawaama jullikatu guddi la woon baara ku baax lool dem nañ ba di ko dàkkantale umul masakin maanaam ñi ñàkk ñëpp ku ci mas a jaaxle li wolof naan ku sa bët mas a xonq rek boo gisee Zeynab binti Jahshin sa bët commencé weexaat gis na Zeynab binti Jahshin radiyallahu anha keroog ba mu faatoo Aïcha nee na ku mën a jaamu yàlla faatu na tey xam nga moo jëkk faatu Aïcha ku ragal yàlla faatu na tey mu ni jigéen ñi seeni borom kër faatu ak xale yi seen bàyyi faatu de fu seen rangoñ masaana tuuru mu ni ndaw si moo leen ko doon fompal allahu akbar dafa mel ni ñi ngay wax ay góor lañ gis nga de yéen a ngi dégg xisab yeneen bi daa mës a dugg ci benn jàkka ci jàkka ji fekk fa benn buum bu ñu takk mu laajte waaw ku moom bu mu gi ñu ni ko Zeynab xisa bi ne bu koy nettal Zeynab rek lay wax Zeynab bii la woon Zeynab binti Jahsh yéen bi ne waaw buum gi lu mu fiy def ñu ni moom daal day naafi la rek moom daal day naafi la ba gëmmentu sa gëmmentoo day téye ci buum yi ngir bañ a daanu yéen bi déere dagg leen buum gi loolu nag mbir mi yeggu fa mën a naafi la nag eggul ci naan da ngay takk ay buum ak da ngay wut ci loo wéerul soo gëmmentuwut naafi laal soo gëmmentoo nga bàyyi Muhammad ibn Kaab nee na Zeynab binti Jahshin liñ ko doon jox par at doon na ma isnay asar alfa dirham ah fukki junni ak isnay asara alfan fukki junneeg ñaar wax na baax wax na baax ah isnay asara alf fukki junni dërëm ak ñaar te xam ngeen loolu lu bari woon la jamono jooja nee na xam ngeen yéen soxna yéen sa salam bi yent bi faatoo buñ masaan dem ubbi benn dëkk gañi am ay màng xam ngeen yent ba muy dundaa amoon wàllam léegi nag dañuy sédd soxna yent bi saa sallam léegi ñu andil ko ak wàllam cëram mu daal di koy séddale ci saasa ba ko Omar déggee dañu ay jigéen ju baax a ngi xaaral sax ma daal di koy dolli nee na mu daal di koy dolliwaat lu ni toll wala junney dërëm nee na mu daal di koy def nam ko defoon séddale ko fekk booba sax moom mi ngi ñàkk lool Abdullahi bin Rafia nee na jël nañ ci Barara binti Rafia nee na ci jamono yu Omar ibn al-Khattab am na benn bis Omar dafa indi lu bare bare bare bare ci alal jal ko ci néeg Zeynab binti Jahsh xoolal xoolal ñooñu niñ meloon ci alal ba biñ ko doon xoolee ak ñun niñ koy xoolee nee na moom bi mu gisee jalab alal bi moom daa foogoon ni soxna yonent bi yëpp seen cër lañ boole dajale ko benn place pour moom na ko séddale bi mu gisee alal ji mu ni si Omar daal moo wan a sonalaate rek defe ne ni lii mënu ko war a jox keneen ci soxna yonent bi mu séddale ko man nii damaa am jot ak nekk bi di séddale lu bare nii ñu ni ko déedéet lii du lu ñuy séddale yow rek yaa ko moom buñ ko waxee yow rek yaa ko moom mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah Omar xanaa jinne da koo jàpp lii lépp ci alal lu ma koy doyee mu daal di wax bëkk néeg bi ne ko utal jox ma sër mu jox ko sër mu ne ko muur ko ci alal bi mu muur ko nee na mu ne ko yoral sa loxo nga dank mu yor loxoom génne mu ne ko loo génne nu mu toll mu ne ko mi ngi nii mu ne ko demal joxal ma ko diw mu yoraatal génne mu yoraat génne loo génne mu ne ko demal joxal ma ko diw muy yoor di génne di yoor di génne ba làmb làmb mu ne ko daa mel dajuma dara mu ne ko muril sër bi nee na bi mu muree xamsa wa samanina dirham la ca fekk xamsa wa samanina dirham daanaka mën naa ne mooy juróom-ñett fukk ak lu lu ay lu topp maanaam daal su doon suñu jamono ji misaal di séddale ba ñu ne quatre cent franc nga defe nee na mu daan ne ko lii mooy sunu wàllu ñun nañ jël loolu li ci des nañ ko joxe fi sabila ba mu paree mu ni allahumma la yudrikni ataau omar baada ami hada man daal alal jàng may bëgg a fitnaal li omar di séddale moom bu dee nar naa ñëw déwén balaa déwén naa faatu jóge fi balaa at maa dellu si te la faatu xoolal ñooñu kon niñ meloon ci alal maanaam ñoom alal ji comme ay xotti dàll yu dagg yoo xam ne da ngay yëkkati rek dem sànni ci sën ba jëndiwaat yu bees ndax am na fu mu doon xool fa sori sikk nekkul ci loolu yonent bi def leen a yaroon nag sallallahu alayhi wa sallam bi muy faatu daa jëndal boppam perkaal teg ko fa ni am na lu am na yére bu ma fi mën a def perkaal comme daanaa ci jaamu yàlla sàngee leen ma ko ndax suñu borom yére mi ma ko amaana nag tam Omar indi fi ab càngaay waaye bu ko fi indee na ngeen fexe rek jël ca benn ci bu fekkee nangu na ngeen sàngee ma sama bés su nanguwul ngeen jël benn bi saraxe ko ba jëlee si ngeen sàngee ma ko mu ne waaye sama sër bii ma doon jaamoo yàlla moom bu ngeen may sàng na ngeen ko ci boole waale allahu akbar loolu nag salaf daanañ ko def mbokk yi mag ju baax ña ñu jiitu daana am robb wala sër wala wala wala bolok bu dee ci góor boo xam ni bii moom ñi la ko xamee ñëpp topp yàlla nga ci daan def saa saa bu dee xiyaamu layli yeeg guddi yëpp moom nga daan sol di dem di ko jaamoo suñu borom su fekkente ne léeg-léeg da nga am ay jaamu yàlla wala ngay naafila guddi xam nga da ngay ñëw ci kër gi fekk ay portement nga gis mu wékk benn bolok wala mu wékk benn robb wala yu demee noonu boo xam ne bii moom pour julli guddee ko tax a jóg ñoom daanañ def ku ci dem bay faatu mu ni bii ma doon jullee guddi nañ ma ko sàngaale su may faatu te loolu l'islam terewu ko kon yenent bi saxaaba yi dañoo toogoon di waxtaan ba mu yàgg xam nga jigéen ñi rek waxtaanu biir kër xam ngeen yenent sa salam daan kat ak ay soxnaam daan wax soxna yi toog xam naa benn tàkkusaan ni wala gannaaw gee rek ñu ne waaw yonent bi yow boo ñu njëkkee faatu ñun kan mooy njëkk a faatu topp sa gannaaw xam nga ñoom lu nekk lañ ko doon laaj ñu waxtaan ko parce que wax dëgg yàlla borom kër la woon gu laabee waaye xoolal yonent bi ni mu mënee jàngale au lieu que mu nekk fanaan diw yaay njëkk a dee xam nga loolu loolu daa daa métti lool su ma faatoo yow diw yaay njëkk a faatu fekk si ma xam nga loolu dafa dafa diis lool yonent bi bi ko soxna yi laajee waaw yow boo faatoo koo yaakaar ni mooy njëkk a topp ci yow mu ne xanaa ki gën a gudd loxo ci yéen ay sa nee na ñun ñu foog ni mbirum gudd loxo la mu ne léeg-léeg dañ daan toog ba mu yàgg kenn ni waaw tàllal sa loxo ma xool yow maa sa loxo ku gën a gudd su ko defee ñoom liñ jàpp mooy ku tàllal sa loxo bu gënee gudd rek yow la ñuy waxal léeg-léeg nga jékki dégg kenn mu naan ah waaye daa mel yaay njëkk a dee de yow sa loxo bee gën a gudd su ko defee ñu koy waxante noonu nee na bi yonent bi faatoo ñu toog diir bu gàtt rek Zaynab bint Jahsh faatu nit fi lañ doog a xam ne ndeke mbir mi du mbiram gudd loxo waaye gudd loxo nga mi ngi ci nam mën a saraxe mën a saraxe loxo bu gudd la mooy loxo boo xam ne foo ko fekk mi ngi joxe fi sabilillah ay sa ne ci lañ doog a comprendre nekkete ah kii doon liggéey di jël alal ji di ko saraxe guddaayu loxo ba saraxe la kon laaj baa ngi sampuwaat ba léegi ayna nahnu min haula muaada binti abdillah al adawiya moo nekkoon soxna sulata ibni ashyam sulata ibni ashyam jàngkat yi xam nañ ko ponkalum jaamukatu yàlla la woon moo xam ni kéemaanu suñ borom la woon li ko suñ borom defaloon ci ay may ci ay karamaat loo xam ni day wane ni kii nitu yàlla la bari na lool borom xam-xam yi di ko nettali soxna sii nag ni mel mën na ne mel ndax Aïcha nekkoon sëriñam Aïcha ko doon jàngal dañuy wax ni moom ak ragal yàlla dafa yeggoon ci day xëy suba rek commencé di pat pat nga xool ko defeen dafa feebar kaay ñu yóbbu hôpital muy dara daluma de damaa jékki-jékki sama xel mi xalaat waa man est-ce que duma dee tey mu ne loolu moo ma jàpp léeg-léeg guddi gi mooy ñëw muy comme ni nit def rek muy siburu yaram yi mel ni ko feebar jagat-jagat kaay ñu yóbbu hôpital muy dara dalu ma de damaa xalaat ni est-ce que guddi gi du nekk saa guddi loolu moo ma feebar loo léeg-léeg danaan tëdd ba guddi mu ne ajibtu li aynin tanaam wa qad arafat tuul arraqaad fi zulmati alxuruur mu ne man day yéemu naa ci bët bu mën a nelaw ba yandoor te xam na ni tëraay ba nar naa yàgg lool ci lëndëm ak bàmmeel dañuy wax ne bu waxtu sedd ñëwaan bu nit ñi daan wut yére yu sedd moom nee na du nangoo wut yére yu sedd du nangoo wut bàjj ndax nee na nuggaay boobu lay ragal mu naj ko ci lal bi ba jaamu yàlla yim daan defal yàlla ci tàngoor wi du ko def ci sedd bi allahu akbar bis daa ñëw ci bis yi ndeysaan borom këram faatu doomam faatu histoire boobu boo demee ci àllu sièr dañuy wax ni bàyyi ji dañu doom ji kaay xaar ma ci sa yaay damay dem jihaad mu ni ko ah mbete ku dox yow li nga bëgg laa bëgg de yow da ngay dem jihaad pour bëgg dee fii sabilillah mënoo bëgg dee fii sabilillah xaar ci jigéen ñi man dama toog ci jigéen ñi de nañ dem nga dee mbaama dee foofu allahu akbar bàyyi ji ànd ak doom ji nee nañ ñu dem ba ca xare ba bàyyi doom jee njëkk a faat bàyyi ji daal di ñaanal ko yàlla moom it soobu ci xare ba faatu xabaar bi yegg ci Madina ñu yegg si ni ko ah Muaada yow day mbir am na lu xew sa doom ja faatu na sa borom kër faatu na te xam ngeen mbokk yi loolu lu nit dëgër dëgër dëgër métti na doom dafa takk ci xol borom kër ni ko danduma nit ñi nag commencé ñëw xam nga nit ñi rek niñ mel seen délégation yi waay waay masta waay yow la dal métti na ku ni masta rek mu ni ay xaaral ma ñëw mu ni in kuntunna jitunna li tahni ati su fekkee leen indi mooy remercier ma ak ndokkeel ma mu ni ko marhaban egsi leen wa in kun na kuntun na jitun na li gayri dalik bu fekkee da ngeen a ñëw ay massa ak yëf yi métti na ak yooyu moom bu leen dugg sama néeg ndax mbir mi ay mbirum massa amu fi mbirum métti na amu ci man li ma doon ñaan yàlla mooy sama borom kër sama doom bés ca jihaad ja ba mu tenjee ba summi góor ñi ñëw di ko sa labat mu ni moom koy doy na sa jaamu yàlla fi ne laa soxla fi ne nii ñu wax ni maanaam nangootu la amaat borom kër ba ni mu faatoo kon jàpp naa ni war nañoo nattaat tamit kooku xool ko fi mu toll am na koo xam ne moom kéem kéemtaan nga sax mooy ab ab jaam la nag faf Abdullah ibn Hasan mooy nettali nee na man damaa amoon ab jaam jaam boo xam ne ab romain la nee na benn bis ma tëdd jaam bi ñëw tëdd sans fekk xam naa mooy waxtu tàngoor rek ñuy féexlu nee na man ma nelaw ba yandoor nee na comme dafa lëndëm bi ma nelaw ba yandoor jub gisuma jaam bi may làmbaatu waaw ana jaam bi fekk dafa lëndëm nee na may làmb ba daj tànk yi ndeke jaam baa ngi sujjóot ma dégg ko mi ngi wax fekk na wax dañu xaw a kawe mu naan yow sunu borom bi xubbika lii illa ma gafarta lii dambi yow yàlla bëgg gi nga ma bëgg sukkandiku naa ci ma am yaakaar ci nga jéggal ma saay bàkkaar nee na bi mu sëlmalee ma ne ko laa taquli bi xubbika lii walakin quuli bi xubbi lak mu ne ko yow kay booy wax kay bul wax yàlla bëgg gi ma bëgg waaye yow bëgg gi nga bëgg yàlla loolu nga war a wax xam nga loolu mooy tawassul maanaam nekkul yàlla bëgg gi la bëgg yow ci ngay tawassul ndax loolu du sax jaamu yàlla waaye yow bëgg gi bëgg yàlla moo di jaamu yàlla te jaamu yàlla mën nañ cee tawassul nee na bi mu ko waxee loolu mu ne ko yow xamoo dara yaay sama njaati ko waaye xamoo dara mu ne ko lu tax xawma dara mu ne ko gis nga du man maa bëgg yàlla ah du man maa bëgg yàlla dafa tax lii di am may guddi maanaam du bëgg yàlla gi moo tax may julli guddi waaye yàlla ci boppam moo ma bëgg ndax li firndeel ni yàlla moo bëgg mooy yaa ngi nii nelaw ba xàndoor ak say morom yàlla yeema ma nelawoo ma di ko jaamu loolu baax ak suñu borom la nee na bi mu déggee loolu mu ne ko yow ëpp nga jaam man mos a nekkatoo jaam ëpp nga ko demal goreel naa la demal sa yoon nee na gis boobu ca la daal jaam bi gore am na beneen jaam boo xam ni moom it kenn ci borom xam-xam yu ragal yàlla yi moo ko moomoon kooku kéemaanu suñu borom la moom laay wax ni jaam yii de man de jàpp naa ne jaam yi bu ñu ñëwoon tey defe naa ne gor yee topp seen gannaaw sang bi ne dama ànd ak jaam bi ba ci marché bi ma am lu may jënd mu ne ma taxawal ko ci benn buntu cantine ne ko taxawal fii xaar maa ngi ñëw nee na ma dugg jënd li may jënd ñëw xool gis jaam bi dem nee na maa ngi mer a mer xam nga da ngay mer ndax sab jaam la yaa ko war a digal mu ni maa ngi mer ba fut nee na bi ma dugg see ci kër gi rek jaam bi seen ma may xaabar xaabari nee na jaam bi daal ni ah saa njaatige defal ndànk defal ndànk xam naa ne da ngaa mer waaye bala nga maa laaj li wolof bi naan bala ngay fël gémmiñu sàmm da nga koy laaj lu muy wali mu daan ni da ngay laaj lu tax ma jóge fa ba pare bala nga maa yedd xam nga lu tax ma jóge fa mu ne ko déedéet mu ne ko yow bi nga may bàyyi fi nga ma bàyyi ba bàyyi woo ko xel mu ne yow da nga maa bàyyi ci pegg cantine boo xam ni taxaw naa fa ay minute dégguma ku fi tudd yàlla te maa ngi tiit place bu kenn tuddut yàlla ma taxaw fa yàlla jépp ñu ma mëttal suuf si moo tax ma ne xaaral ma daw jóge foofu gaaw allahu akbar allahu akbar nee na bi loolu amee moom it mu daal di moom ñoom noonu lañ daan def bu ñu gisaan yu mel noonu dañ lay daal di goreel ndeysaan mu daal di koy goreel ni ko yow moom goreel naa la fii sabilillah demal mu daal di dem xam ngeen Abdullah ibn Omar dañ koy nettali benn defe na maa ngi koy nettali keroog ci dundam dañuy wax ni jaam yi ku mosaan a bëgg a goreel da ngay commencé nangoo dem ci akkat yi sawlu di góorgóorlu ndax moom ku mu gis nga tax sunna rek mu goreel la nga dem sa yoon kon ñooñu noonu lañ meloon beneen jaam bu jigéen a ngi nii boo xam ni nee naa bu ñëwoon gor yi topp ci ginnaawam Hasan ibn Salih nee na man damaa am jaam bu jigéen ba mu yàgg ma am soxla yóbbu jaam bi jaay ko ca marché ba nekk ñi mu ko jaay ñoom jël nañ jaam bi yóbbu ca kër gi guddi jot jaam bi moom lam tàmmoon kër Xasan ibn Salih mooy naafila guddi nee na ñu julli gee ba noppi jaam bi daal lal sa jaadam commencé di naafila xam naa mu julli ba ay 11h waa kër gi fàtt mu julli ba minuit daal di ñëw fëgg buntu yi kon kon kon waaye yéen du ngeen jug julli nee na kenn faale ko mu continué naafila ba guddi gi xaaj ay 3h nangam mu ñëwaat kon kon kon waaye du ngeen julli kenn faale ko te ñetteelu yoon ba nag. borom kër gi ni ko waaye yow noppal nu waay yàq nga suñu nelaw yi tey yi ñun fajar daa jotagul ba nga nu yee ndeysaan jaam bi jooy kon ci ëtt bi di jooy bi mu jullee fajar rek mu ni pëccëg daw delluwaat kër Xasan ibn Saalih su ko Xasan gisee daal ni ko waaye yow xanaa da ngaa dof lu tax nga ñëw mu ni ko démb de xaw ma ban soxla nga am xaw ma loo ma jaayee waaye njëkk jëru ndax nit ñi ma jaay duñ julli guddi te bëgguma dëkk ci kër gundul julli guddi allahu akbar Xasan daa xëy dem lijjantiwaat xaalis delloowaat gaaya seen xaalis ba jëlaat jaam bi indi ko ci biir kër gi kon gis ngeen ñooñu wax dëgg yàlla ay jigéen lañ woon yoo xam ni boo leen dee xool seeni melokaan seeni góorgóorlu même ci buntu wut borom kër am na benn jigéen bu imam Ibn al-Jawzi